di la nuyu bu baax di la sant ci audience bi audience bi nga xam ne daanaka luñ ko te xam nañu aussi sa jot bariwul euh, euh, dañoo jëloon décision ñëw Touba pour mun a lu ñuy woowee visite de travail ñëw gis éléments yi commissariat yi fi nekk. Euh, gis nu ñuy liggéeyee gis jafe-jafe yoo xam ne moom la ñu jànkoonteel ak li nga xam ne moom la ñu war a def pour améliorer liggéey bi loolu nag bokk na si suñu lu ñu woowee si tubaab suñu agenda waaye nag aussi ñu ngi lay euh, remercier si sa disponibilité parce que biñ la ko waxee ak léegi yàggul te xam nañ ne amoo jot euh, nga am jël décision recevoir ñu la si gërëm bu baax a baax di la si sant. donc di gërëm aussi xalif général des des des des di ko sant bu baax di ko ñaanal aussi moom tamit mu yàgg fi te wër donc di ñaanal kilifa yi fu nekk yëpp fii si Touba kilifa diine yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñu yàgg fi te wër donc di leen feddale aussi suñu kóllëre di leen feddale aussi suñu suñu soutien ci wàllu bi nga xam ne moom la suñu liggéey euh, fi lañu féete ànd nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay collaborateurs ñu nekk ci commissariat de police yi fi nekk li fi manqué si police rek mooy ñi ñu béré rouge yi mooy GMI mais daanaka comme ñu ngi fi rek daanaka G bi mu ngi fi donc ñu ngi leen di sant bu baax di la gërëm bu baax donc visite nag comme ni ma ko waxee ci njëlbeen visite de travail ñëw xool euh, dëkk bi ni euh, ni éléments yi fu ñu toll ci wàllu liggéey bi ci wàllu sécurisation bi. comme ni ko commissaire waxee léegi am na loo xam ne nemmeeku nañ ko fan yële passé surtout fii si Touba côté marché Ocass bi ak yenn cas yoo xam ne aussi nemmeeku nañ ko si côté Mbacké donc yooyu nag defa laaj euh, ay dispositifs yu adapté yoo xam ne fu ñu xoolaat suñu dispositif gën ko renforcer léegi nag dama ñëwoon si anam boobu laa ñëwoon pour jéem a waxtaan ak samay collaborateurs ngir Touba dëkk bu am solo la dëkk bu am importance la si wàll yëpp donc comme dëkk bu am solo la dëkk bu am importance la ci gis-gisu président de la république si gis-gisu ñëpp ministre de l' intérieur directeur général de la police ñi nga xam man maa leen tey ñëw fi nag ngir euh, mën a euh, saytu liggéey bi renforcer li nga xam ne moom la fi amoon ndax loolu. gëj fi am wala mu bañ fa amati ñu liggéey su baax a baax Touba ak Mbacké lu yàggul rek renforcer nañu dispositif euh, humain bi mooy effectif yi commissariat yi fi nekk yi Mbacké ak Ndamatu ak arrondissement yi renforcer nañ ko te gouvernement bi aussi par l' intermédiaire ministre de l' intérieur aussi dina fi tabax yeneen commissariat de police ay projet yoo xam ne ñett commissariat war nañ koy tabaxaat Euh, am na ministre de l'intérieur gouvernement Sénégal aussi am na yéene renforcer dispositif groupement mobile d'intervention bi donc si loolu aussi autorité bi dañ ma yóbbante woon pour ñu ñaan leen pour ñu mun a élargir fi nga xam ne moom la ñu nekk léegi xam naa ne loolu aussi ab liggéey la parce que daanaka foofu dañ ñu ko dañ ñu ko abaloon pour euh, kii bi euh, màggal bi waaye nag. Touba il faut mu am dispositif GMI parce que dañ ko soxla ci wàll yëpp ci wàllu sécurisation ak wàllu sëriñ si yaa ngi fii dañ ko soxla donc loolu bu ñu mun a am site foo xam ne dañu mun a am foo xam ne day fii si Touba dañuy am fu ñu mun a am foo xam ne GMI dafa mun a nekk ñu mun a renforcer dispositif moo gënal ministre de l'intérieur moo gënal directeur général police loolu ñëw yokk si nag ñett commissariat yi nga xam ne moom la. état bi nar a tabax fii si fii si Touba pour renforcer euh, sécurité bi dama ñëw nag pour ziare la dama ñëw ziare donc waa Touba dama ñëw aussi pour lancer ay opération yoo xam ne opération coup de poing lañ koy tuddee yoo xam ne dañ koy lancer pour euh, bàyyi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fi ci dëkk bi diggante Mbacké ak Touba ñoom ñu continuer liggéey boobu ñoom ñooy wéyal liggéey boobu de di liggéey boo xam ne warul taxaw. sant laa leen sant naa leen ñu boole seen doole ñoom ñëpp waa Mbacké ak waa Touba ngir sécurisation ñu mën ko renforcer doole ko si ak GMI bi nga xam ne moom la ñu nar a renforcer li nga xam ne moom la la ñaanoon léegi autorités yi ñaan la léegi ñu am site boo xam ne dinañ mun a bàyyi GMI bi si Touba ñu renforcer ko donc loolu moo doon suñu tànk sëriñ bi di la ziyaare di la sant di la xamal ne aussi souci sécurité euh, souci sécurité Touba souci état bi yëpp la souci président de la république la souci ministre de l'intérieur la souci directeur général police la souci ñi nga xam ne ñun ñu fi toog yëpp suñu souci la bu doon suñu sago dañuy yeewu fii te dara du fi am agression du am insécurité du am braquage du am dara du am loolu moo ñu gënal te ci la ñuy liggéey aussi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi nga xam ne ñu ngi si tànk boobu donc ñoom la ñuy jéem bu soobee di leen si ñaan di leen si sàkku ñaan aussi parce que loolu aussi pour mu mën a sotti il faut ñaan xalif général des mourides dugg si il faut seen ñaan yéen tamit yow euh, sëriñ bi porte parole il faut aussi sa ñaan aussi dugg si yaakaar nañ si bu baax a baax ngir li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne moom nañ ko am si sécurité cent pour cent moom la ñu bëgg ci Touba ndax ñu mën ko am donc si loolu sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant donc di la ñaanal yàlla yow tamit nga yàgg fi te wér jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi lay delloo am nuyoo ak mboolem ñi nga àndal ñëpp di yóbbante nuyoo ci sa kilifa yi nga xam ne ñoola fi yabal tàmbalee ko ci ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ba àgg ci président Macky Sall di la dalal jàmm di rafetlu dikki gi ndax ni nga ko waxee chaque euh, fois jamono yëpp. suñu xel ak suñu xalaat nekkoon ci xalaatu nu ñuy defee jéego ngir waxtaan wàllu sécurité bi kon nag bu yàlla defee mu nekk seen xalaat ngay ñëw gàttandu ko ngir xam jamono yëpp ci dëkk bi li nga xam ne mi ngi fi xew muy lu tiis ndax sécurité moom mooy li jiitu lépp ndax fal ya'budu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanuhum xaw fi bala ngaa mën a jaamu yàlla sax dangay am jàmm amuk dal kon sécurité moo jiitu lépp balaa nit a tala lekk wala mu tala naan wala mu tala liggéey sax faaw jàmm dafa ne kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy defal nit ñi wuutu leen ci ngir bëgg nit ñi am jàmm kon yéen ñi nga xam ne yéen a wàllu sécurité képp koo xam ne xam nga ni àdduna doxe rek lu leen di gën a dëgëral lay wax ak lu leen di gën a jàppale seenub liggéey waaye seenub liggéey kenn waru ko woyofal ndax bu yàqoo rek li ñuy wax fawda mooy anarchie mooy am ci am réew te loolu baaxu ci yenn fànn kon ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, wàllu sécurité bi nag Touba day dëkk bu mag boo xam ne luñ ko bàyyi xel rek waris na koo dolli ndax waxtu ne damay wax ne dañuy bëgg jàpp aspect diine bi rek jàpp ko dëkkub diine wala village bu yàgg ngir ni mu bindoo ba tax yu bari di fi manqué looloo ko indi waaye buñ ko dee natt rek nañ xool ginnaaw bu Ndakaaru jàll mooy dëkk bi gën mag Sénégal ñaareelu dëkk kon lépp lu ñuy xayma di ko natt si wàllu sécurité foofu lañ ko war a natte waaye bu dul loolu rek eh, ni ñu koy calculer day daal di manqué. te xam ngeen ne euh, Touba day dëkk boo xam ne ni ngeen ko waxee dafa spécial spécial gay li ci jiitu mooy Serigne Touba moo fekk fu dara nekkut mu jaayante ñaan suñ borom ba suñ borom may ko fay ko lii mu ko fay ñaanam googu nangu nag moo waral dëkk bi sax dal ak jàmm ji am fi waaye bu toonu loolu kon saa su xëyee danga gis nit ko faatu ngir dëkk bindoo ndax Touba. téeméer at yi tégalu du bari te gis ngeen ni mu te fu ne nit dafa bàyyi ko ñëw bari na ci ay dëkk yoo xam ne ña fa yéesoon ñoo làqatu ñëw fi wala ñu bëggoon raw wala ñu bëggoon a mucc wala ña xajatu fañ dëkk loolu nag dëkk boo mës a gis mu sosoon ci àdduna rek dëkk lee doon boo xam ne eh, dëkk bu ñàkk jàmm lay doon Tuubaa nag suñu borom mosoon na ko ci loolu ngir ñaanu sëriñ bi. Euh, ci biir loolu nag moo tax ci jamono yi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ci la xam ne dëkk bi dem na ba laaj gendarmerie ci la fi indiwoon brigade spéciale bi ngir xam ne siwil mënta lijjanti moroom civilam addunay dox ba Serigne Saliou Mbacké moom ci xalaatam xam ne police mënta ñàkk ci dëkk bi mu indi ko fi kon loola di dox ba ndëgg ni ginnaaw bi maa ngi fàttaliku ci 2013 Cheikh Sidi Moustapha mi fi nekkoon yónnee woon ma ci président Macky Sall ngir yeneen diite ci biir loolu laa ko waxaale woon escadron bii fi nekk ngir ñu tabax ko fi ci la joxe ndigal ci sama kanam booba général moo fi nekk ba yàlla def loolu liggéey ba àgg bañ ubbi ko commissariat kon waris na ko gën a dolliwaat ngir mu gën a jege nit ñi gën a te ñoom ñu gën a farlu ci seen liggéey ndax farlu gi. mooy fexe ba ñi ñuy lijjanti bañ leen a yab loolu dara jiitu ko ci liggéey bi te jàmbar yi xaw naa bari ci dëkk bi seen liggéey ñoom kon ñoom itam nañ xam li leen indi ci dëkk bi xam li leen fi tax a jug ndax nit bu fekkee yaa ko a àtte war koo lijjanti boo fexe ba ak xeebe lool ak yebe dox sa digg moom rek boobaa na ko war a lijjanti loolu desate te loolu lépp itam bokk na ci li nga xam ne baaxul ci am réew kon ñoom itam faaw ñaax leen soññu leen. ngir xam ne dëkk bi day dëkk bu spécial waaye bu loolu jàllee itam ñi fi ñëw dafa bari te li tax bu fi ñàkk jàmm amee muy metti mooy dëkk bi bariwut usine li ci ëpp commerce la moo tax li ci ëpp boo ko seetloo te commerçant yi xam ngeen niñ baaxoo li ci ëpp seen marché seen àll seen bitig la ñu ne kon bu ñu dajjee benn bitig rek day daal di metti daanaka danga gis koo xam ne euh, dalay wax ne bañ dajjee sama bitik deseetuma dara ndax loolu liggéey commerce moo bindoo noonu te commerce moo gën a bari ci dëkk bi kon foofu fu mel ne marché Ocass bokk na ci barab yi ñu war a gën a sécuriser waaye dëkk barab yi ci yi gën a sori yooyu itam ndax am na ci barab yoo xam ne euh, bu fa dara xewee boo wootee ba la ñu agsi daanaka daana fekk ñu ci te ñi taxaw ci bitti duggukaay dëkk bi it mën naa bàyyi xel ndax boo koy seet. li ëpp ci li xew ci dëkk bi ñu koy def dëkkuñ fi dañuy jóge ci biti ñoo def ko bu noppee dawaat kon loolu itam mën naa gën a bàyyi xel loolu daal mooy yi nga xam ne néew nañ buñ leen gisee danañ leen ci soññ ngir xam ne am ngeen ci yitte ak euh, taxawaay ak yéen yi nga xam ne fas ngeen ko fi yéen def den waaye nag ñoo xam ne rëyaayu dëkk bi moo toll noonu kon ñi leen sant bu baax di leen gërëm di la ñaanal yow itam mission bi nga xam ne euh, say kilifa yaakaar nañ ko ba teg la fi ngir bëgg jàmm am te ñi la xam ñëpp am ci yaakaar ngir sa liggéey yàlla na la ci yàlla defal ndam defal la ci tawféex defal la ci liñ ci séentu ci yow nga def ci lu ko ëpp ñu ngi sant ñi nga xam ne itam ñoo la fi nekkal ci dëkk bi di commissaire Sarr mi nga xam ne mooy taw yàggu fi. moo itam di ko sant bu baax ci taxawaayam di gërëm itam commissaire Thioubane ak yeneen commissaire yi fi nekk yëpp ku ci ne ci liggéey bi nga xam yéen ko te di ko defal nit ñi ndax yéen seen liggéey bi dafa day liggéey boo xam ne ni ko waxee ci njëlbéen nit ñi ngeen di liggéeyal kon nit ñi itam faw ñu leen di dimbale ci seen liggéey ngir xam ne ñoo dem fi bàyyi ndax bu ngeen nekkee ci naaj wi ñoom ñu nekk ci kër gi euh, loolu seen jàmm leen fi bàyyi ñoom itam buñ ko déggee noonu rek ànd bi day daal di yomb asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wal tudxilil fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al